nee na bi asamaan setee baayam wax ndeyam ne ko nanu dem dimbale ko tegal ko mbaar mi nee na bi ñu àndee ba jub sëñ bi sëñ bi ne ko yow ñëwal waaye jigéen ji bu mu fekk nee na baayam dem di ko jàppale muy teg mbaar mi nee na contrôle bi ñëw fekk ko fa jàpp nañ ko tëj nañ ko fukki weer ak ñaar ci kastu lu tax nga di ko dimbali ñu yaakaar ne nag xëy na fukki dërëm yi yi muy sànni tam daan ko jël moo tax mu di ko dimbali nee na bàyyi baa nga ca kaso ba ñu daal di euh, nekkoon xëy na sànni gi mu koy sànni da ko xeeb waaye nañ ko ko dajalee mënuñu ko delloo ndax gouvernement français ku ko sant moo sant ñu di ko ko jox mu dajale ko ñu dajale ko ba ca déwén sa mu nekk téeméeri dërëm yow nguur ñu daal koy kocc fas ko commandant bi dal di ñëw commandant euh, adjoint bi nag mooy mooy ki koy jox pension bi nee bi mu ñëwee fas ko dal di ko koy jox ne ko li la daan jox euh, li bu yàgg ba tey dañu la ko dajale ndax dégg nañ ñu ne koy sànni léegi nag dajale nañ la ko ba am na importance téeméer dërëm la ak ñaar la xaalis bi dal di jël kocc bi daal di koy rax tubaab mu toj muy nàcc mu daal di koy porter plainte tubaab bi nee mu jóge fi juróom fukki kilomètre da koo dox de ca ca ah, déedéet sëñ bi ci boppam waaw ah, ba kay moom moom fooba euh, fu ñuy wax njole njole la moom la sëñ Moussa di juum léeg-léeg naan njuuli njuuli amul njole la dëkk ba tudd dégg nga léegi mu dem njole fa la tribunal militaire ba nekk nee na ba mu demee commandant ba delsi wut wante sëriñ bi moom delsi na commandant nag delsi diggante boobu nag ku ñu bëgg a nomee nga bañ doo ko bay ci la Dudu Mambay moomee waxe ne boobu moom ab duwaañ la bu nekk ca Lodima ca Congo Lodima Congo la la nekk nekkul ba euh, Gabon benn dëkk la ci euh, ci Congo Lodima la nekkoon foofa dal di leen wax ne man euh, ci waa wolof laa sénégalais laa te administrateur ma moo jëkk a nekk nag administrateur ci nit ku ñuul léegi bu ngeen ma nommee commandant man danaa ko régler ñu daal koy nommé commandant daal koy indi la neen nag fitna ji mu fitnaal sëñ bi kenn mus koo dégg ci àddina daana ko rooseloo ay garab lu ne ci àddina lu ne lu ne rek defloo na ko ba benn bis ku bëgg rëbb la woon ànd ak euh, kii bi planton bi ñuy rëbbi mu fetal ko mu dee planton bi la waaw bi ñuy rëbbi mu waaw waaw mu mu <laughs> juum rek daan na ratorox rek nee na euh, ci la ñu joge reewe ko ko dàq ko yëlee ko fi yóbbu ko Conakry fa la nekk nag daa mujjoon dof xam nga <laughs> dafa mujjoon dof di dem joor di ko nekk ci loolu la mujj nee na bi nga xamee ne loola am na nag ba ñu rewa ko ko ñi fi nekk ñépp nag di ormal sëñ bi di ko fonk ci biir loola nag la tubaab yi ne kat nañ ko jële fii yóbbu ko feneen ndax fii tàmbali nañ koo teral ci lañ ko transféré nag yóbbu ko Mayumba mu ne fa